sàkku nun peuple lu Sénégal ñu criminaliser góor jigéen def ko muy ab bàkkaar def ko muy ab crime boo xam ne ni ku ko def dañuy teg ci sa kaw ay daan loolu na ko état bi def lu tax du ko def état bi kan la fi nekkal ndax dafee nekkal ku dul sénégalais yi bu boobaa lu ko neex mën naa def waaye bu fekkente ne sénégalais yi la fi nekkal sénégalais yi lii lañ wax na fi góor jigéen jóge na fi góor jigéen jóge te nañ ko criminaliser ba kuñ ko gis ku nekk teg la lañ la war a teg wa naha nafsa an ilhawa wa xaaba man kadaba wa asaa wa athara alxayaata addunia wa usalli wa usallimu ala nabiyihi almustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma baad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 borom bi nga xamante ne nii ne moo xam sekkare moo xam li ñuy wax ndànk texe na képp koo xamante ne nii ne ragal na taxaw ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala tax mu tere ba kanam bànneex yi perte na képp koo xamante ne nii ne weddi na te mooy te gënale dunduk àdduna ci àllaaxira ñuy julli di salmal ci yonenteem bi mu tànn ak ci waa këram ak ci saxaabam ak képp ku ko topp ci rafetal ba raw bi penc gannaaw loolu yéen jaami yàlla yi maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ragal yàlla ak topp yàlla yàlla mi ngi wax ci alquran ne yaa ayuha alladina amanu taqu taqullaha wa qulu qawlan sadida ñi nga xamante ne nii ne gëm ngeen yàlla tey dox ci aw yoonam na ngeen wattandiku na ragal borom bi subhaanahu wa taala ci def ay ndigalam mooy tandiku ay tereem te ngeen di wax wax ju jub koo xamante ne nii ne ragal nga yàlla di wax wax ju jub yàlla dana defar say mbir yàlla dana la jéggal say bàkkaar ko topp yàlla akub yonenteem ci lépp lu mu digale ak lépp lu mu tere kookee de mooy ki texe texe gu rëy ga nañu xam ne mbokk yi xam-xam bi ànd ak muus xam-xam bi ànd ak dégg bu ànd ak wax ju jub ak jëf ju jub loolu xéewal la goo xamante ne nii ne yàlla moo koy maye jaw yiw wu yàlla wax ne wa man yu'tal hikmata yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya xayran kathira koo xamante ne nii ne jox nanu ko xam-xam bu ànd ak wax ju jub ak jëf ju jub koo na xam ne jox nañ ko yiwu baree bari kon nag xam-xam boobu mooy fexe ba teg mbir yi fi fi mu yeyoo boroom xam-xam bu ñu wax ibnul qayyim yàlla ko yàlla yaram mu ne mooy def li yàlla ci anam gamu yàlla ca waxtu wa mu yàlla nit ñi nag dañu ñu di gëstu xam-xam boobi ak fuñ ñu ko mën a amee ñuy toxal waxi boroom xam-xam yooyu mu nekk ak leer nekk barke nekk yiw woo xamante yàlla moo koy def ci seen wax ya nit ñi uute ci melal ñenn ñi ci ne boroomi xam-xam lanu ñu nekk ay hakim ñenn ñi ñu gis na ñoom duñu ay hakim waaye nag yàlla moom moo tànn luqmaan ne jox na ko xam-xam boobu wala xad aataynaa luqmaan al xikma luqmaan nag doon jaam bu baax ci jaami yàlla yu baax yi moom ay ndénkaan yoo xamante ne nii ne da ko dénkoon doomam mu muy ay waare yoo xamante ne nii ne ñun ñépp mën nañoo waaru ci waaru yooye ba nga xamante ne nii ne yiw bu bari da caa nekk moo tax yàlla ne ko santal yàlla mi la jox xam-xam boobi te képp koo xamante ne nii ne sant na yàlla na xam ne cant googi njariñal cant googi ci moom lay dellu ndax ci sant ci la xéewal yi di saxe ci lay dolli ko yàlla wax ne wa istaadana rabbukum la in shakartum la azidannakum yàlla daal di déclaré déclaration bu mu feddali ne saa bu ngeen sante samay xéewal day leen ko dollil waaye itam ci weddi xéewal yooyu ci la yàlla di déjjatee yi ci la ko fiy jëlee te ko wàññi dara wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin koo xamante ne nii ne weddi nga xéewal na xam ne yàlla ku doylu la ci yow yàlla ku ñuy sant la yàlla melalu luqmaan melaw yi ba tax mu tudde ko saar lu dul ngir ñu settantal ko ngir ñu génne njariñ ya nga xamante ne nii ne mën nañ ko caa jëlee jariñoo ko yéen jaamu yàlla yi na ngeen xam ne yàlla mi ngi ñuy jox xibaaru luqmaan ak i yam doon dénk doomam ju baax ja wa id qaala luqmaanu libnihi wa huwa yaizu fàttalikul yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndénkaan la luqmaan dénkoon doomam ja di ko waar mu commencé ci waare gu gàtt ngir lan ngir mu teewlul bakkanam ngir mu mu teewlul xolam ngir mu mën a xëcc ab déggam ci yeneen ndénkaan yuy ñëw inna fi dalika la dikra liman kaana lahu qalbun aw alqa sama wa shahid nekk na ci fàttaliku alag gi ñu alagoon xeet yu njëkk ya nekk na ca ak fàttaliku ak waare ñeel koo xamante ne nii na am na xol buy xalaat ak koo xamante ne nii ne am na nopp yuy dégg lool yi muy la muy teewlul ci xolam kon nañu xam ne bakkan dafa aajawoo ak waare léegi-léegi comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa yittewoo ci saxaabaam yi di leen waar ñu jëla ci Irbaad ibnu Saariya mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa nañu waar waare gu tàng jër goo xamante ne nii na sunu xol yi dana ragal sunu bët yi di jooy mu daldi moom luqmaan woo doomam ji ci woote goo xamante ne nii ne wootug ñeewant la wootug mbëggeel la mu ne ko yow sama ndoom kon war na ci ñun ñu imaginer lool ñu xalaat jeexintal ban la maane googee di am ci doom ju ndaw kon war na ci képp kuy laabire ngay jëfandikoo ngay tànn baat yu nooy di tànn baat yu neex yoo xamante ne nii ne dana tax xol man laa diglu mu dénk ko ndénkaan lu njëkk li moom mooy bul bokkaale yàlla ndax nit munta texe ànd ak bokkaale bokkaale mooy lay yàq diine mooy lay yàq dund gi bokkaale mooy alkande adduna ak alaxira yàlla moo ne innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna wa mawaahu ma lilzalimina min ansaar yàlla nee na képp koo xamante ne nii na nga yàlla boole kook leneen yàlla araamal na ci yow aljanna te ëllëg sa wàccuwaay mooy safara te foofee de am kenn ku fay dimbale wala ku fay xettali kon nañ xam ne jëf yépp yàlla dana ko jéggale ba mu des bokkaale innahu la yaxfir inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan baida yàlla nee na du jéggale bokkaale euh, bàkkaaru bokkaale waaye yeneen bakkaar yépp dana ko jéggal ku ko neex ko bokkaale yàlla nanga xam ne sànku nga sànku gu sori bokk na ci li luqmaan wax doomam ji ci bi na ne ko bul bokkaale yàlla da koo leeral lu tax mu ne ko bul bokkaale yàlla ngir mu mën a xam li tax looli mu ne ko inna shirka la zulmun azim na nga xam ne bokkaale de ak tooñ gu mag la ba mi ngi bokk ci bàkkaar yu mag yu ñaaw yi ndax yàlla mooy ki la bind di la wërsëgale dotti ci ay xéewal ngir benn jubluwaay mooy lan jaamu ko moom dong bañ ko bokkaaleeg dara wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li binduñu nit ak jinne lu dul ñu wéetal yàlla kon ban tooñ moo gën a rëy boobi yow ngay bànneexu ci xéewali yàlla yi ba pare ngay jaamu keneen uute li nga xamante ne ni ne moo tax ñu andi la ci kaw suuf yàlla tudd gannaaw looli ci ndénkaan la ñaari waajur mu ne wa wassayna al insaana bi waliday dénk nanu doomu aadama digal nanu doomu aadama mu baax rafetal ci ñaari waajuram mu mel na Luqmaan jéggi na ndénkaanam yi ci ñaari waajur ak xam gi mu xam seeni àq ngir bañ caa gis boppam tax na mu daal leeral ne ndénkaan looli yàlla dénk ñaari waajur dénk doom ci ñaari waajur noonu la dénke doom yi ñaari waajur noonu la dénke ñaari waajur doom ni nga xamante ne nii ne ni la doom war a rafetale ci ñaari waajuram nekk noon itam ni la ñaari waajur war a sonne ci doom ci yar ko jubal ko ba muy leeral lu tax ñu war a baax ci ñaari waajur lu tax ñu war a rafetal ci ñoom mu ne xamalatuhu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaaluhu fi amayn aniskur lii wali walidayk mooy ne yaay ëmm na doomam ci coona ci kaw coona ndax ku ne xam na ne ëmb coona la matu coona la am doom coona la nàmpal coona la kon coona ci kaw coona la mu feral ko bi mu amee ñaari at yàlla ne doom ji sant ma ndax man maay ki nga xamante ne maa la muccal muccal sa yaay maa def ci sa yaay sa dund maa def sa yaay mu am yërmande ci yow santal sa ñaari waajur yitam te nga xam ne itam man may delluwaay bi ëllëg danaa fay kenn ku ne lamu mu yàlloo kon àq yaay moo gën a rëy fuuf àqi baay waaw bi sallallahu alayhi wasallam laajoon nañ ko ana kan moo gën a yay ñu baax ci moom mu ne ko sa yaay mu ne ko topp kan mu ne ko topp sa yaay mu ne ko topp kan mu ne topp sa yaay mun ne ko topp kan mu ne ko topp sa baay nag lu tax loolu ndax yaay dafa lot ci niñ ko bindee ba pare ëmb gi dolli ko lot ne ko noonu itam matu gi dolli ko lot am doom gi dolli ko lot nàmpal gi dolli koog lot ñàkk nelaw guddi ngir doomam dolli ko lot kon yàlla yàlla nga jéggal sunuy yaay yàlla ñu dimbale ci ñu baax ci ñoom ñuy dund ak ñuy faatu gannaaw àq ñaari waajur yu rëy yooyu deesu ko deesu ko sàmmonteeg moom su fekkente ne nii ne dafa safaanoog àq yàlla ndax yàlla nee na wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tutihuma su fekkente ne nii ne say ñaari waajur dañ laa digal nga moy yàlla ci loo xamante ne nii amoo ca benn xam-xam wala ñu digal la nga euh, bokkaale yàlla ci loo xamante ne amoo ca benn xam-xam bu leen leen topp ndax laa taa'ata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq deful topp ki ñu bind ngir moy kii bind kon dana des danañu des di leen topp di baax ci ñoom ci mbiri àdduna su fekkente ne nii ne dañ ay bokkaalekat wa saahibhuma fi dunya maarufa na nga ànd ñoom fii ci àdduna ci njëkk mooy ne lépp luñ la digal amul mooy yàlla na nga leen ca topp wattabi sabila man anaaba ilayya na nga topp yoonu képp koo xamante ne nii ne dafay tuub ay bàkkaaram dellu si ci man summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun nanga xam ne delluwaay bi ci man la te danaa xibaar kenn ku ne lam doon def danaa ko fay itam kem jëfam ba tey ñu delluwaat ci ndénkaanal luqmaan li ñeel doomam dara gënta rafet bàyyi muy fàttali doomam ne yàlla mi koy bàyyi xel yàlla mi ngi koy gis ci lépp lu mu def mu ne yaa bu nay innaha in taku mithqaalu habbatin min xardal fa takun fi saxratin aw fi samawati aw fi l ard yati biha allahu inna allaha latifun xabir yàlla ne yow sama ndoom na nga xam ne lu baax ak lu bon suñu tolloon ne pepp suuf wala ñu gën koo tuuti ñu nekk ci biiru doj wala ñu nekk ci benn place ci asamaan wala ci suuf yàlla dana ko andi bu keroog yowmal qiyaamati yàlla dana la ca regle na nga xam ne yàlla ku am ñeewant la ci ay jaamam yàlla ku dañ kumpa ci jëfi jaamam la jamono ji nag fitna bari na lool bànneex yi bari nañu lool yi nax nit ñi bari nañu lool yoonu mooy yàlla bari na lool ba nga xamante ne nii àdduna ak yiwam ak yu baaxam yépp dafa nekk ci loxol xale bi mu koy walbati ci ab portable am waaye na xam ne dara du ko jariñ lu dul mu bàyyi xel borom bi subhaanahu fexe ba di dégg waxi borom bi fexe ba xam ne yàlla mi ngi koy dégg yàlla mi ngi koy gis waykat ba ne saaboo wéetee ci di sikk sàkk ci ak mooy yàlla ci ak lëndëm bakkan di la woo ci nga mooy yàlla na nga rus yàlla mi nga xamante ne nii ne mi ngi lay gis nga wax ko ne ko yàlla mi bind guddi gi de mi ngi may gis topp Luqmaan digal doomam ji jëf ji gën a rëy gën naa wéetal yàlla mu ne ko yow sama ndoom aqimi salaa taxawalal julli juróom mu koy jàngal relation bi nga xamante ni moo dox diggante jaam bi ak borom bi muy julli gi nga xamante ne nii ne moo lëkkale jaam bi borom bi waaye nag nañu wattandiku li yàlla di wax ci aay bi mu dal ñu fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaata wa tabaau shahawaat fa sawfa yalqawna gayya yàlla nee na ñoom dey wuutal nañu seen gannaaw ay sët yoo xamante ne nii ne sànq nañu julli topp seeni bànneex ñooñee de bu ëllëgee yàlla dana leen sànni ci safara wu ñu wax xay ba tey ndénkaanal mooy moom yonent bi moom la mujj dénkaane bi mu waaj a faatu mooy kenul lislaam li gën a rëy Omar ibn al daana wax ne ku bàyyi julli amatoo dara ci lislaam kon pour xale bi am njariñ pour mu xër ci bëgg bëggal lu baax ñeneen ñi faw muy digle lu baax di tere lu bon moo tax mu ne ko wa mur bil maarufi wanha anil munkari na ngay digle lu baax te tere lu bon ndax digle lu baax tere lu bon nekk na ca ak ñeewant ñeel ñeneen ñi nekk na ca itam ak kiiraay ñeel nit ñi ci mbugalum yàlla nekk na ci itam ak aar ñeel societé bi ci yàq nekk na itam ak défendre société bi ci mbugalum yàlla yàlla wax ko ne ko nanga nga muñ lala cay dal ci ay loraange ndax ku ne xam na ne digal nit ñi lu baax tere leen lu moom faww dana am koo xamante ne nii ne dana jàkkaarloog yow lor la yàlla ne ko nag wasbir ala asaabaka inna dalika min azmil umur na nga muñ ca la ca dal ci ay loraange te nga xam ne ndigal looli yàlla digal la ndigal lu lool la kon yi ay mbir yu rëy la yoo xamante ne nii nag kenn du ko man ku dul ki amuk dogu ñoo xam ne ñu ngi ci ndénkaanal Luqmaan lim doon dénk doomam waaye fàttewul ay teggin ak njariñ li nga xamante ne nii ne teggin am na ko ci xale mu ne ko wala tusaxir xaddaka linnaasi bul jàngal sa kanam soril ko nit ñi booy wax ñoom wala bu ñuy wax ak yow ngir xeeb leen wala ngir rëy rëylu waaye nanga wala tamsi fil ardi maraha bul dox ci kaw suuf di rëy rëylu ndax yàlla buggul kuy rëy rëylu buggul koo xamante ne nii da ngay damu moo xam ci sa jëmm ngay damu moo xam ci saw melokaan ngay damu moo xam ci say wax ngay damu nanga xam ne yow mi nga xamante ni yaa rëy rëylu yaa ngi xëccoog yàlla ci benn melo ci melo yi nga xamante moom dong moo ko yeyoo yonente bi sa alayhi wasallam ne yàlla de nee rëy rëylu mooy sama taraxlaay ak màgg mooy sama euh, koddaay koo xamante ne nii ne xëccoo na ko man danaa ko sànni ci sawaraw jahannama yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxaat ba tey ne ñii rëy rëylu yàlla dana leen pang ba keroog yowmal qiyaamati ñu mel ne ay xorondoom yu ndaw yu yor meloy góor yàlla dana leen peek akuk torox tànge ci bépp palaas dana ñu leen wommat jëme leen ci kaso boo xam ma ca biir aljanna bu ñu tuddee buulis dana leen tiim safaraw safara yi danañu leen nandal ca la nga xamante ne nii ne mooy génne ci yaramu ñuy lakk ca safara ci ay dëtt ay deret loole moom la ñuy naan yàlla nañ ci yàlla musal yàlla ne xale bi bul dox di rëy rëylu ndax yàlla bëggul kuy rëy yàlla bëggul kuy damu yàlla ñu ñuy dox di rëy rëylu mu waxaan ñu feneen wala tamsi fil ardi maraha innaka lan taxriqa al arda walan tabluqa al jibala tuula yàlla nebul dox di rëy rëylu ndaxte munoo xotti suuf ngir rëy rëylu munoo tolloog doj yi cib guddaay itam ngir rëy rëylu kon nañ xam ne dox yu anamuk dox dafa am ay tegtal yoo xamante ne nii ne moom lay wane ci xolu borom bi am na koo xamante ne nii ne buy dox day rëy rëylu di pant am koo xamante ne nii ne moom buy dox day toroxlu ñooñee yàlla tagg leen ne wa ibadu rahmani alladina yamsuuna ala al ardi hawna jaami yàlla yi nga xamante ne nii ne bu ñuy dox ci kaw suuf si dañuy dox di toroxlu di def ndànk am ñoo xamante ne nii ne bu ñuy dox dañuy ànd ak kerse fa jaatu ihdahuma tamshi ala istihya Ah, yàlla di wax ñaari doomi Suhaybu ya nga xamante ne nii na Muusa fekkoon na leen ca teen ba mandalal leen seenu jur ñu dellu dem ca seen baay ba daal di koy wax ne ko gis nañ daal koo xamante ne nii ne ku jara jàpp surgala la ña seen baay daal di yónni kenn ca ñoom pour mu woo ko ba mu ñëwee di ko woose dafay dox ànd kers kersa kon nekk noonu yàlla mi ngi dénk ba tey ci lamiñu Luqmaan doomu Luqmaan jooji buy dox muy ndànk waqsid fi mashika na ngay def ndànk bul temp waaye bul waaxu itam na nga dox ànd ak wegeel ànd akuk dal kon xoolal Luqmaan ndénkaanam yi loolu bari na ñoo xamante ne nii ne duñ ko bàyyi xel ci yar waaye moom xeebul dara ma koy jàngal itam beneen teggin na ko wax dur min sawtika na nga wàccee sabaat bul yëkkati sabaat bay lor ñi nga xamante ne nii na ñoo lay déglu ndax inna ankaral aswaati la sawtul hamir baat bi gën a bon ci baat yi mooy baatu laxmaar yow jullit bi na nga xam ne lislaam dafa bëgg nga def ndànk ci say wax moo tax mu ne la wax dud min sawtik na nga sabaat booy wax dafa bëgg itam ngay def ndànk ci booy dox moo tax mooy la wala tamsi fil ardi maraha bul dox ci suuf si di rëy rëylu dafa bëgg itam ngay wàccee sab gis mu ne la waqul lil muminina yaxuddu min absaarihim yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxal jullit ñi na leen na nañuy damm seeni gët yàlla dafa bëgg itam sab dégg nga regle ko mu ne la wala tajassasu bool yëddu dafa bëgg itam nga regle sag lekk mu ne la wala tusrifu bul yàq ki nga xamante ne nii ne moo réglé sa yu yëpp koo koy doy na mu réglé sa dund ba defal la texek àdduna ak alaxira allahuma aslih lana azwajana wa dhurriyatina waxtim bilbaqiyati salihati amalana allahuma aiz al islam walmuslimin wa adhilla dhirka walmushrikin warfa raayat alxaqi waddin wa aslih lana dinana alladi huwa ismat amrina wa aslih lana axiratana allati fiha maaduna waj'al alxayata ziyadatan lana fi kulli xayr walmawta raxatan lana min kulli shar tuubu ila salaatikum yarhamukum allah yéen a ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw gaaw abonné te activer cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji daara Koki TV la chaîne au service du Saint